ñu lay fay ndaamale ci loo ne sant yàlla a wéer kañ tey leen gis naa ñu ne teew mooy dama gis sama rek parce que pare ngeen dama jëm noonu lu ma xew boo xoolee sama day gis booy sama ñun ku si xewle rek su ma yàlla may jot nga ñëw assisté la quoi. tey seen bopp dañ la yóbbanteem. waaw mu tax daa ne wax ku ko xoolee xam ne ab champion la wax dëgg yàlla waaye na ko fi xëy na nag wërsëg moo ñëw rek mais nangu nañ ko ab champion am. parce que parce que dama ko ne kera góor day ànd ak ñoom Papa Sow ak ñoom mën na di liggéey mu ne ñooñu sax maa leen dàq bëre yow sax na da nga koo teggi mais war ngeen a bëre bu yàgg. waaw mais fii moom ba boo gis rek yaakaar ne moo dàq bëre ñëpp mbër yëpp nag mbër boo gis yaakaar ne moo dàq ku nekk rek yaa dàq bëre ñëpp. Mbaye lamb loolu lamb moom wërsëg bu dee rek ak fulla ak fayda waaw loolu kese la moom. Gora na koo daan samedi. ah bien sûr loolu loolu tax ñëpp teew fi loolu de maa sant yàlla la. waaw bëggoon na ñëw nag mais xam nga yàlla dogal quoi. am na tamit seetlu def taxaw seetlu fan yëpp dégg nañ ne sax sa rakk bëre ñu daan ko grité dafa euh, nga am wax boo wax ci wax bu dafa ngay waxee lan la problème Gris Fass lañ ci mën a cofal. waaw xam nga écurie Fass aussi am na bureau am na ñu war a wax am na président am na secrétaire général am na am na am na am na xëy bu ngeen demee ñoom mënuñ tënk quoi man mbër laa rek de mais nag bu ma seetaan bu ko mbër di blessé morom mbër te mu bokk écurie man écurie mbër boo ko man écurie ñu koy blessé ñu xalaat ndax dafa am lu fi amoon mooy jox Fass ñu mbëri dafa defoon benn erreur bu mag mooy génn Balla Diouf ñu turoo seetaan Balla Diouf génn dafa doon génn kon ñu mel noonu yëpp dañuy sécuriser bépp mburu Fass man Papa Sow bokk xaw ma keneen mais dootuma nangu kenn léewal mbëru Fass doole. waaw donc ça veut dire que parce que su ma Gris doo tam dëgg nañ ko wax mu mel ni dafay daf la jox raison ci ne Papa Sow li mu doon la. waaw man man man utuma si ay raison man utuma si ay raison ak ku ma jàppale ku ma jàppale man dama ma presse wu bopp maay mbër yoon newu ci mais en tout cas man daal heure bi ba bàyyi ba la génn écrifage warul génn dootul am ci équipe moom. Gris 2 dañ koo seetaan xanaa. ah Gris 2 dañ koo seetaan. non loolu man wóoruma ndax man jege nekk moom ci préparation bi ñu mën sori demul ci préparation bi en wax yu d'abord yi génn non de c'est fini mu mu nekk loolu moom. non du ma ko nangu kenn ku wax du ma ko nangu kenn moom. yow daal kon su ma la déggee nga pare pour défendre ko ci côté yëpp. non non lu dul noonu injustice baaxul ci écurie ak leneen leneen ay bu nekkee dañuy waxtaan amee kenn ku def erreur ngeen woo ko wax ak moom bu bañee bu baax ngeen ngeen wax ci mbedd bi mais loolu moo njëkk mais woo ko waxoo ko génn wax ci média yi di wax pour lan amul sens te ñun ku génn kaas ñu a dëkk sa digg mënul nekk waaw. kon daal écurie bi su ma la déggee day mel ni kon daal kenn sañ ta wax daal. non du ay kenn sañ ta wax ku mu si am kuy wax luy defar luy defar ak lu baax da ngay wax mais kenn wax wutal nit. loolu baaxul ndax kenn bëggul ku la tuuti la kenn bëggul ku la tuuti la soit bu la waxee ci yow sa mbokk génn défendre la wala kenn génn défendre la li li ñuy yëg loolu la ngeen di yëg aussi li ñuy wax si yow say mbokk am lu leen méttee ah boo ko waxee ci keneen noonu la ko amee lu ko mett ay mbokk am aussi nit la rek waaw nit nag bu dee mbaam nga nag bëggoo dara bañoo dara lu la wax nga jël loolu yaa xam mais nit moom nit da nga am ngor am looy bañ ak looy nangu aussi waaw am ay waaw da nga am nawle léegi itam am na lu ñu parce la ñuy seetlu fan yëpp ay coow ci Gris dafa ngi soutenir na kii soutenir na kaa ñu koy dégg yow loolu noo ko déggee. non man moom loolu intéressé wax dëgg yàlla man li ma intéressé mooy Gris Fass ci la Moussa Gueye boo keneen jëlee ne kaay jàppale moom seen diggante la mais kenn ku nekk xam nga fu mu yaa xam yaa xam. war a doxee wala. Ah, man xaw ma en boo ñaar dégg naa papaam déggoon newoon na Fass. bu ma magu Fass yi conseillé Boy Niang jaadu na ko conseillé jaadu na man la laa wax jaadu na mais nag leneen leneen la waa leneen leneen la. Papa si ta leneen la. waaw man maa ngi fi di entraîné rek ku ma yàlla boole rek. Papa Sow guy gi leneen la. waaw combat yi gën a neex sa am na fi. ban ak ban ab. Ah. ah combat yi gën a neex am na. ana Boy Niang. ah laaj naa leen ko. Boy Niang ah, lekk avance am wala Boy ba xam ñi lekk sama avance. ndax booy ñaañ mën a élection. Ah, loolu ngay wax ba xam man waaw. ah booy dana ne curuxu curuxu la indi. ah waaw loolu moom laa indi jantal booy la kuul booy la mais <laughs> man <laughs> man man du ma ñeexum ñebe kenn moom wax dëgg yàlla. doo doo gune. déedéet dama booy gune la. ah parce que booy xale la man daal lu ma ci xam daal mooy yàllaa may ndam waaye ku ñëw di nga ñam moom li kàddu gi daan wax ku ñëw di nga ñam moom da ngaa bëgg a dugaat Pikine ah non bañu waaw non bañu Pikine nag dëgg naa nga fay tànk géej waaye ak fu ma yàlla boole rek te yàlla naa ci am ndam hmm. waaw loolu laay wax quoi waaye booy daal doo ñeexum ñebbeem ah, non man maa ngi fi di bëre boo ñaa Papa Sow moo a bañ mais mun maa bañ. waaw ndax man dama wane sama preuve. waaw ah moom defuñu bu ma nee preuve man dama wane lu leer. depuis kañ maa ngi ci làmb ji. ah man pour man def na preuve wala. non non déggoo ma la def na ay preuve mais man depuis kañ maa ngi ci làmb nga si làmb de macha allah. waaw xam nga yaa ful bàyyi ma fi waaw. kon daal tey ku ko dox yow pare na pour may ko sens. bu ma la déggee. bu ñu ko doxee waaw bu ko combat bëri na fi ku ma waaw kontaan ci yow. bëgg ci yow. Bakar ci mbir li mu liggéey incha allah rek ba weer samedi maa la waxoon man Bawol de foo teg ci liggéey tey son de rek xaar rabbi ba weer jege diir rek roo ko jël amul tiit ku tiit ba samedi yàqu gars yi ngande jooy ngande ini gars yi waa waa waaye mooy mooy 27 juillet Samba yaa nga mën na koo inshallah doole bëri on la waykat yi wax bëgg naa la gëmal yàlla gëmal yàlla lan mooy gëmal maa ngi de ci loo ne sant maa am nga jàmm am naa jàmm bu baax gars yi day nee nañ fi mu nekk nii da ngaa yaa ñu noonu say adversaire xaw ma nu mu demee yow da ngaa ragal am am combat wala. non mosuma am ragal man du ma ragal. non non non du ma ragal. waaw doo wëlbatiku tuuti nii. ah wëlbatiku wuyul fee. ragal. loolu loolu la teree bëri yow. ragal mais du ma ragalaat. lan moo teree bëri. xaw ma ko. waaw maa ngi taxaw sama entraîné. yow comme gis naa fi guy gi de. pare naa pour ñoom ñëpp. Siteu. déedéet pare naa pour ñëpp. Sa Thiès. pare naa pour ñëpp. pare naa pour ñëpp. booy ñaa na booy ñaa na ñëw. borom a fa turu. non comme Fondem bi jarul fële kee na ñëw fii mu jar fi daa bëgg ci Fondem. boo bëgg naa ci. ah Fondem maa mën na koo lekk. comme comme jarul. na ñëw ñu naan ci. waaw. mais Gora Sock Pikine la jëm de. lu di wax waa Pikine non góor a li ñu koy ñaanal mooy ndam o sonn na ci combat bi def na ci lépp lu ñu def donc ñun liñ ko li ñu liggéey moom mooy pare na ci côté yëpp donc li ñu mën mooy ñaanal ko yàlla yàlla dafa ko lu rëy te xam naa dina ko am bu soobee yàlla ndax mérite na ko waaw Pikine Parcelles waaw waaw lamb la rek comme dab waaw lamb la rek mënul weesu lamb Blindé bëgg la waaw Babacar maa am ngeen góor a sant pour samedi waaye ñun pare nañ pour lépp ndax góor suñu nit la suñu xarit la te ñoo bokk dëkk parcelle mu nekk suñu waaye nekk suñu grand mënul ñàkk am bés bii nii te duñ teew waaw foog ñu teew quoi. bi de. Ah, waaw waaw day jaadu lu daa jaadu ñu teew waaw comme ça ni mu ko waxee rek bëlante waaw ñun moom PA lañ PA moo ñu ñor quoi waaw. yow amaatoo combat depuis nga jógee sa combat ba. dégg nga. ana la pataake ba. waaw waaw baal tooñ waaye. loxo bee diis rek. waaw <laughs> loxo baa diis waaw. mbër ba la naa la. waaw fii bi la waree naa la baax a baax. yow fi ñu gis góor a gis la fa. lu xew. waaw xam nga góor sama doomu ndey la maa ngi ànd guddi bëccëg sama combat bi passé da si dafa des jàpp bu baax a baax. billaahi wallaahi moo tax combat am dama siy sonn comme damay dem fépp yaa ma gën a xam te laamu ji moo ma gën a ñor si àdduna incha allahu rabi si kàttanu yàlla ak mbaaxam maa ko dàq bëre fuuf te mënu maa daan góor billaahi maa ko dàq bëre waaw sant yàlla rek yaa bëgg a xam góor suñu doomu dara suñu gënaa la yàlla ko yàlla may ndam asan lamb yi dama teele samay samay xarit laa teele ngir lamb ji barki Modou Mbacke yàlla ko yàlla may ndam mosoo gis jinne bu joomi lamb ji di nga gis jinne bu joomi lu leer la wax parce que daa sa frère wala sa doomu ndey sa xaw ma lan moo jëm ci bés samedi est que pare ngeen. waaye pare nañ si tous les plans wax nga dëgg sama doomu la sama xarit la sama lépp ñu ngi waaj ni ñu ko war a waajee ak suñu mbokk gis nga open press bi ni mel nii di ko si ñaanal ndam lu kawee njortam parce que borom baax la quoi di ko ñaanal franc di ko ñaanal bébé bisimilah di leen ko ñaanal mbëru parcelle yëpp waaw ñu ngi waaj daal pare nañ sax la ñuy wax pare nañ. kontaan ci yow Bas. a bëgg mbënd mi sant sama ñaari waajur waaw ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur baax a baax di sant axlu bayti rasul bépp di wax tey dañoo am naqar quoi am sama benn booy boo xam maam ñoo bokk papa dafa wàññeeku doom sagu géej gi des si ñu na ko yàlla xara àjjana te yeexe loolu tax sa affaire bi demee nii mais dañuy sant yàlla baax a baax a baax yàlla lu ko neex rek lay def jàmm yàlla na ko yàlla yërëm te yeexañu rek loolu lañ koy ñaanal waaw. tey bu ñëwee sa combat actuellement ay quelques jours ci des ginnaaw bu ñu la jaale lool boo ko yow naqar bi ñaan yàlla kooku yàlla na ko yàlla mu tax xare ko aljana góor a actuellement nii donte actrice boobu ñëw ne mais loo yëg ni sa diggante ak Tyson de actuellement loo yëg. waaw bala may wax si loolu mooy man comme lu ma la yëg ci mbër yëpp laay yëg deuxièmement di woo waa Cambérène yëpp ak sama mbokku mboor bala may wax dara ak waa parcelle di wax man 1000 billets lañ ma jëndal loolu du caaxaan damay woo képp rek ku bëgg a ñëw so suñu laay bas laay ñoom ñëpp ñoom seexu naa sëñ Omar ñoom Tafa Diop di ngi leen gis ku waaw soobee yàlla di wax Babacar lu ma doon yëg sama combat yëpp laay yëg le 27 juillet na ma gars yi tool ci kaw ci suuf naa ko gérer incha allah kon su ma la déggee la nga waxoon ba tey da nga koy confirmer waa ji ko laajal sa bopp wax naa la yow ma si daan ko la ma se dama koy duma doo koy daan incha allah yow ma si daan ko de waaw. tey seen neex naa duma. neex na duma waaw. nu mu neex a duma dafa nooy wala daa mënta bëre wala da nga ko doole. mën na lépp mais man dama ko a duma ndax dama ko mën. incha kon yaa ko ëpp doole su lépp luy mbër man maa ko ëppale te incha bu soobee yàlla naa ko daan. pourtant moom ci côté bëre bi sax nee na même yow ñi ngay àndal sax moo leen sax daq bëre sàkkantuma laa yow xoolal caméra yi. léegi dama génn ci ñu may le 27 bu 20h jotee na xam maa moom ñoo war a bëri ak ñi mu àndal war a bëreel le 27 incha allah bu timis jotee waaw. est-ce que am na looy moytu ci Tyson 2. man amul may moytu si moom su ma amee lu may moytu ma daan samp ci kaw te man sa suma yi dafa mu may xaare le 27 su ma sumee ko nañ xam incha allah. jiñ nga wax nga fi wax équipe nationale dégg naa sax mu ne xanaa équipe bu Guinée nga ne woon bu Mali. waaw xam nga loolu wax bu yàqu la man nekk naa Thiès Ambra Sarr yor ma Ambra Sarr bi may dégg at boobu moo amul maag Fodé Sarr ñoo fa nekkoon sans culo cinq personnes la ñu jëlee ñu fi wàññi leen ba mu des maag Fodé Sarr kon waroon naa dem waaw. kon daal dàq bëri bi muy wax moom ci côté yow jàppoo ne moom loolu am la. mosul jël musu 3 millions wala 5 millions mais jël naa ko fi Iba Mar ba taay ñëpp teg seen bët. mosu koo jël tey Papa Sow bu ñëwee dooleel la. non rek benn soo yàgg na am combat ñëw combat ñëw nañ samay grand lañ dañ ma war a taxaw sama lamb li ci des ñoom dañ ci war a jàpp xam ne dañoo am rakk boo xam dafa dafa war a dem nekk si yoonam kon damay rafetlu seen taxawaay waxuma Papa Sow waxuma gis ñor Moussa Dioum parcelle gépp boo ma kenn man doomu parcelle laa doomu Cambérène laa doomu Mboor Mboor laa gox yi ma seer dafa bëri comme man liggéey moom war waaw. tey ñu gisee axe parcelle Pikine bi saf-saf Modou Lo ngay jongan 3 de arènes ngeer ak ci beneen côté bi yaag Tyson 2 bi loolu nu ngeen koy lijjantee. waaw comme lu sama papa wax rek soo bëree moom na xalaat lënd bi lënd na jot. revue de presse fi incha allah. parce que lënd ba moom jàppal ne yaag ngeer fe ngeer franc day féete côté góor ak Tyson 2 noonu moo doog ama seen noonu lool yi a ngi ciy bàyyi xel lënd jooju yàlla nañ ko fekk tal. lépp ñu ngi ciy bàyyi xel. 3-0 incha allah bu soobee yàlla. waaw. incha allah. foo teg 3-0 yi foo ko teg loolu foo ko teg nii. dañuy liggéey. Modou Lo kenn la. maag Fra ay ay xale ñu ngi liggéey nekk suñu yoon. le 27 la ñu xam ne dañuy liggéey incha allah rabi. waaw voilà Gora Sock ñu seetlu ni euh, da nga yokk tuuti masse masse adipeuse da nga yokk masse musculaire quoi nga war a bëre koo xamante il est très vivace day xeex rapidité bi macha allah est ce que liggéey nga ci rapidité bi. waaw xam naa yéen journaliste doon ngeen gis rek mais man dama gis damaa wàññeeku sax mais bu dee lépp lu lu war a am le 27 maa waaw. xeex bi tamit rapidité bi tamit mu ngi fi. non nañ bàyyi ba le rek xam nga nit moom lu mu yóbbu du ko wax. baal 27 incha allah rabbi rek waaw. ku yëppale mbooloo. non man xam nga ni mag taajante bokkul combat yi mu fekk ma bëri ba maar ñëpp gis nañ ko asumaan ñu jëndal ma 1000 billets 1000 billets du caaxaan. arène nationale dégg naa baaxul ci mbër mu amul supporter de. waaw dégg naa day day day wane mbër mais man xam naa naa fa feeñ incha allah <laughs> waa di sant bu baax du nuyu sama papa per ba jàpp na ci taxaw si bu baax a baax a baax wax maam Mbaye ñaa yàgg na si jàpp mu ngi gën di jàpp. Amadou Ba di sant parcelle ma kenn sama mbokk mboor mboor yi mut béy aram Ndiaye jiyu béy ñëpp mënu mën a lim mais ku ma limu leen xamal sa tur ngi ci gars yi ñëw jàpp si bu baax a baax a baax di sant bu baax a baax nag asoy laay bas laay seexu naa Abdou Ndiaye sama rak am di Moustapha doomu parcelle mooru parcelle dinaa seen taxawaay bu baax a baax Iba Daouda Béy di wax ni man doomu parcelle laa gars yi ma gën a jàppale taxawaay bi rafet na trop mais ñu gën ko yokku deuxièmement mooy le 27 incha allah ku di fekk sama gàlle di nga dem yaa ngi taxaw biir yaa ngi taxaw tiset yaa ngi taxaw waaw incha allah rabbi waaw bëggee waaw deuxièmement dama di wax ne rek sama waa kon di leen jéegul xam nga combat dafa metti di wax maire quoi yëpp ñu ñaanal mu baax a baax ñaan laa soxla di sant sañ Cheikh Fall Mbor bu baax baax sañ Cheikh sañ Bass Fall Alxuraan di sant Ibou Sinil axlu baytu rasul bépp maa ngi sant bu baax a baax di sant kilifa diine yëpp incha